doté d'un savoir-faire pointu. Tour, une nouvelle vision du transport. mbokk jullit rawatina mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نيجي دلو لسندالي الله سبحانه وتعالى جل تيون تبي صلى الله عليه وسلم دي دلو لسندال سرنج توا خادم رسول تيجان السرنج توا سرنج شخص المختار ياقف في اللول تاندك وير بنالينا خامني نال نقول الإسلام رواتنا يوم سرنج بيم أجلكوا فكابين جرتم تمو عندك عنن باقي يوم بكت دلو سوار سرنج رابين خام ممي واجاي مقال تيجانك مين يومير وقتانه كو جنبار جو خامني وقتانه كو يتيلنا لول مي سرنج معمود الأمين بار إنشاء الخادم ñew nak fekk fi ci benn tali Serigne Khadim Diatta souf di ko ni kenn dot luñ ko présenter ci walu waxtane tassara l'islam rawat na ci kër Serigne kon bala ñu guddal rek dañuy jox Serigne Khadim Ndiaye mu nuyo ñu dugg ci inshallah euh jere jef mak jarro ma ngi len di fay ab nuyo bu baax di len sante di len gërëm di len ndokkeel lit ci barab bi ngeen fekk di len ci dalal jamm hit nak di bekk bu baax hit ci sa laaj bi nga laaj. muy euh, cheikh Mouhamadul Amin Baara ibnu cheikh al ridwanullahi alayhi cheikh Mouhamadul Amin Baara day ab juddoom daa bokk ci jagle yi yàlla defal yenn ci jaamam yi nga xam ne juddu yàlla da ko fonk ba di ko tudd ñaare am na ñaari judd yu mag yum tudd ci alxuraan muy juddub Seydina Yaxya ak juddub Seydina Euh, Aïcha alayhi salaam boo gisee anniversaire baax ci nit ku baax ku judd wasalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma euh, amootu wa yowma ubxasu xayya kooku benn judd ci judd yooyu la ko waxoon mooy jàmm yàlla na nekk ci sama bisub juddu jàmm yàlla na nekk ci sama bisub dellu jàmm yàlla na nekk ci sama dund kon amna ño xamni xam seen gane jamono lepp salam la manana jam la ñuy indaale Cheikh Mouhamadou Lamine baram mo nak da cee bok ndaxte mi ngi juddo ci Touba te mu yaakar nañ ne wax nañ ne tarikh wax nañ ne ci ñi jëk juddo Touba la bok su fa njëkkatu juddo ndax ginnaw Cheikh Mouhamadou mustafa la ak nday ak bay cheikh mustafa xam nga ne moy taw Cheikhul Khadim euh, baayam xam nañ ko yaayam soxna Aminta Lo la tudd soxna Aminta Lo moom it nga xam ne mooy woy juru seex moom leneen baara daa am ay jagle yu bari moom it ndax daa bokk ci ki njëkk doon ki njëkk sañ ci kër ga su fekkee ne sancut kër ga it ci ñi fa ñi nga xam ne ñoo fa njëkk ami taaw la bokk ndax soxna Faati Dia moom Sëriñ Tuubaa wax nañ ne ci ñi ñi nga xam ne dañoo des jamono di dund dañuy wax ne moom mag na sëñ Modou Moustapha moom dañuy wax ne Mbàkke Kajoor la juddoo ñenn ñi sax dañuy wax ne sëñ Mor Anta Sali kon feral bàyyi ba waajur sëñ Tuubaa kon ku teel am ay njaboot la ci kanam juram sëñ Baara moom yi nag bi soxna Aminta ñëwee ci kër gi ba di fi liggéey nga xam ne sëñ Mañang Faaloo moo ko yoroon ku baax la woon sëriñ bi mas na faa dem sëñ Tuubaa ci ba muy dox sëñ bi dafa bëri dëkk yu mu dem ba mu fa demee àgg fa fekk mu doon waaju baax ñu xam ne dañ ko doon wax ne waliyu la ba mu demee yoro mu daan ne ko man de damaa bëggoon nga dama bëggoon nga nga ñaanal ma soxna Seck wax loolu ne ko dama bëggoon nga ñaanal ma ñenn ñi sax dañ ne dafa ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ku mel ni yow eh, loolu ak mbaax la ci jublu ndax boo xamuñ sëñ Tuubaa fu mujj waaye nit bu baaxee te mën a mën a mën a bàyyi xel lu bëri fu mu gisee nit ku baax xam ne kii su ko ñaanlee mën naa am lu ne ndax booba la sëñ bi daal di koy ñaanal yàlla tamit def ñaan ga waaye ndekki doomam lay doon dafay bokk ci eh, pàggati fi sëñ Tuubaa lay bokk. ba ma fa jógee nag ba yàlla àtte loola soxna si def ni muy jigéen def ba noppi muy tënj ba noppi ginnaaw ga nag la ko kenn ci ay ñi nga xam ne ñoo ko faree kilifa ñoo ko dox indil ko sëñ bi bi muy sañ ci Tuubaa boobu gane jamono. lagi bi muy sañ ci Touba gogou Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bobu bir keur gi Cheikh ibrahim Fall mii ngay deg mi fi di def ni do ngay di def sax bobu di dem ak dik di liggey sañ bi di jox ndigal bobu ku ñu wax abdou rahman loy mi ci keur gi di jangale alcorane ak du doon doomi soxna sëñ Ibra Sarr Sañu ak sëñ dumbi Xabaan ñom ak ñu bari ak sëñ dar Assane Ndiaye ñom ak ñooñu bi Bara mom ci la ci la wo ñent ci ñom kon ñi ma la wax bëri fa nekkon di terbi waye ci lawo ñent doon ni ñent ñooñu rek fa ne daane leen yéen ñii day dañ see abdu bi laaj ko mu ne ko man de mbacki xana di la gëna bëgg rek am ne ko lo bëgg def ne ko xana mbacki di la gëna bëgg ñen ñi sax dañuy wax ne bobu daf ko bi serigne bi ne ko yewé nañ leen nak léegi jaa am ngeen jaa jëf man ngeen dem nak soppi wu legi yéen neena mom daf ne woon sëriñ daf ma ah serigne touba na ma lo do wax na ah serigne bamba na ma waaye loolu de bokk ci woon nga xam ne moom waxutoon ne sëñ bi damay jógee ci waaye sëñ bi dafa doy ku doy waar ndax liggéeyal ko diirub jamono xajut ci kenn léegi sëñ moom moom yi nag sëñ ndaam nag daan ne sëñ Tuubaa man de dama bëgg ku bokk ci sama askanu ndey ak sama askanu baay buñ faatoo yàlla ne sama borom dugal aljanna képp koo xam ni ki dafa sukk lu ci yow te santuñ mbàkki ba busa nee nañ booba da koy wormaal ngir ngir ngir waaye loo tax mu tudd ci loolu nekk ba mbàkki ba mbaa busa waaye bu ne ko surtul mulki nee far fatte ni seigne touba dako ko wax ne ko nakoy def ñaar rek bo demé ndam xam nga xaw dem nga fam deet neeg néeg ba mu koy foofee foofa la ne ba fa ko daan naa fi ko seigne touba fekkon bam joggé Jolof seigne ci ni la kon da ngay daal di ne gan ganangi fi go xamne gu am mana bam gané jamono hit nenañ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko tan lu tur ni tuddé ko Muhammadul Amin kon Lamine jo deg aminu sirr la aminu sir nak moy ko xamne da nga yor secret dafa am wet go xamne fa nga fare loolu yi dal moy gan ak jamono sëñ Baara mbag ah, Touba la gane jamono ci diir bi la gane jamono bo foofu fii la lii la fekk ga mel ñepp di liggéey ak xey ak gont seigne Touba bo moy serigne bi ku xey dem ci sa liggéey liggéey bo moy for tax ak dag bant defar saket ak dem defar khalimba pour ak jangali goné yoy mo fi nekkon liggéey ci bari sëriñ Mamadou Lamine Bara moom am njàngam ci njàngin yi gën a doy waar la bokk ndax xam nga ne doomi sëñ Tuubaa kenn ko ci nekk sëñ Tuubaa moo la dalal sëñ Bara ci jamono yi sëñ Tuubaa la gën jamono mbaa xam nga ne ci ñim fi bàyyi bi mi laa dem géej la bokk ñenn ñi sax xëy na dañ ko doon tudd rek naan sëñ Mourou Moussa sëñ Fallou rek waaye fi la ko bàyyi bi muy dem géej boobu moom judd na ndax ko judd Tuubaa ca jamono yi muy sañ ci Touba ci quatre vingt huit ca quinze la sëñ bi dem xam nga da ngay xam ne boobu defut defut ko ne waaye nag dafa am ndeysaan diggante bu bu bu doy waar bu daw yaram ci moom ndax xam nga ne moom yàlla dafa dogal namput weenu soxna Aminta dafa dafa gane jamono rek tuuti tolloog jamono bi sëriñ bi masa woo benn bés soxna Aminta Bousso ak euh, soxna Aminta Lo moomu xam nga ne boobu ñoom ñaar it ñoo ne ci kër ga. soxna aw buso ak soxna aminte loo soxna aw buso moo jur sëriñ fàllu daan ne leen ñun ñett ñii de euh, dafa am ko ci sa soxla foofu nga yëg fi ne sëyit jigéen àggatut foofu fi boo wante soxla ne ko maag yow de dafa am ko ci sa borom soxla koo xam ne danañ da koy jëlte boo danaa la jëlal ba ma ba ma doon sa kër gi wala sa oto bi boo ba mu soxna aminte loo moom ba làmmiñu sëriñ bi di daal rek mu daal di ne eh, man de waaw nee soxna aw bu so daf ne ko su dem dee dem su dem dee su su dem munta ñàkk eh, mbakke nañ la demal nee nañ soxna aminte loo daan ne ko su dem munta ñàkk naa leen demal ndaxte su fi su demee bàyyi ginnaaw sama sama sama sama mo lemin mi ak si sohna sohna amin te dina ko mana sohna aw dina ko mana yore te yow Mbàkke da nga am liggey bo sour sa sa borom kon nak su dem meunta ñak man mii may dem nga xamne non noonu la ko waxee te wax nañ ne jamono bu fekkona mu jël ay galagam ak moy ay ay wurusam ak ay yu bari jox ko serigne bi ne ko dama bëgg nga ñaanal ma sama yu tuuti yi ndax ñu am barke loola jigéen daana ko def xamu jigéen léegi ñu ngi koy def am eh, léegi yàlla dogal mu mel ni lam doon def dafa nangu loola it eh, danañ koy wax nii sax ci munaasaba boobu danañ koy wax lu bari di ko tudd di ci tudd waaye man la ma ca gis mooy Sëñ Tuubaa def ko doy waar fim ne xam na ne faatu dina dikk mu bëgg nag lii dikk mu doon jihaat ci ki ki muy dal ci moom ndax jaay bakkan la xam nga li wax bu baax xamna ni ne jandik ndax ko xamni ki xam nga ne da nga dem liggéey sa borom xam nga ne nangam ak nangam yu bëri ci am yo xamni doko doko xolé ci doxim nit yalla dafa yéeme waye rek bëgg na mu doon jaay bakkan mbirum jaay bakkan kon soxna si dafa jaay bakkan dafa jiat baye fi suñ bobu nak li daw ci li ci daw yaram nak neñ moy bi soxna si dafa genn boba xam nga ni fi ñuy denc nit ñi ci armée yu njëkk yi booba al ab allah la dan daan taxane joge ci kër boba kër gi saketu ngeer lañ ko njëkk def dag ci ngeer bi ko kër ko gi ba noppi ñeenti néeg fa nekkoon loolu dégg naa suñu amar di ko nettali suñu amar gelangal yar na ko yàlla yàggal baax ñeenti néeg léegi nag euh, bi yàlla dogalee soxna si génn nag neeñ demoon euh, jëm ci lobb wala yu mel noonu de waaye rek ndox suuf laal ko seetal li ko yóbbu te xoolal fi nekk nii bu la bu la bu la ndox suuf laaloon tey ji boo tabbee seen kër ñoom ñooñu rek day day day day day doo ko dugg ay wàcc am na ci ñoo xam ne nii nga solee mbaxana mi buñ boo ñëwee daw ak si jaanaam matt ak faaf faaf jaanaam matt ragal dee dañ lay këpp mbaxana mi la demal mu la dañ am na ci ñoo xam ne boo fa leen boo boo duggee seen kër boo waree néeg ba rek loolu xamoon naa ko ci eh, baxdaat fee ci kër sëñ sëñ Abdou Xaadir boo waree néeg boo ko fekkuti noonu xamoon naa ko ci mel noonu kon jaan du ñëw di mat nit ki muy faatu te sëñ Tuubaa ñu boole ko lu ne ci àdduna xam nga loolu da xam ne mbirum suñu borom mel noonu loolal nag bi soxna si nelawee saan xam nga tuut tànk ak ndeyam ñi mel neeñ sëñ bi day julli timis sëñ baara waaxu wutali seen raam wutali ndeyam su dee wutali soxna si bi mu waaxoo wutali soxna si sëriñ bi nekko ko cas téye di ko téye fekk boobu jubloogu ci mbirum soxna si waaye mi ngi ko bàyyi noonu mu tëdd xam nga moom yoonam du xamee eh, lii lee waaye xam na ni miinarloog ndey ak doom rek loolu ak ak ak ñi sëñ bi ñëwentee ci moom ak diggante ndey ak doom ak ñi way juróom bi demee sëñ bi nee bi mu koy jël noonu rek di ko taf ci boppam rek dinañ foofu def foofu la ko lu bëree bëri duggee moom sëñ Baara foofu loolee loola tax lu bëri topp ko loo xam ne jëlit ju bari la ci jëlit joo xam ne dafa fees dell del del del sëñ Baara dafa fees bay tuur yàlla ate euh, bi mu ko defee moom mu nàmpati weenu soxna soxna Awa Buso te xam nga sëriñ bi seexul xadim ñoo kooku ñoo ñooy deretam sëñ baara dafa nàmp dereti sëriñ tubaa ba noppi gañewuj sëriñ tubaa moo ko jox doole ji mu am nag xam nga kon dafa dafa boole lu bari moom dafa boole ndaam ak mbusoo bi ak kokki ak lépp ak njóobeen dafa boole yëpp moo tax sëñ baara amoon doole doole biir ji ak doole saahir ji ñoo tolloo woon doo ci xam bu ci ëpp doole noonu la defee nag jàngum sëñ baara nag moo gën a yéeme nga xam nga sëñ Moussa ka sax day wane eh, jàng eh, maanaam eh, jàngul woon loolu muy wax maanaam jubluwul ne jàngul dafa jublu wax ne jàngul mu ko war a mën a may mu toog te day woy arab xam nga noonu la ko wax waaye jàngul woon nag njàng mu ko war a mën a may fi mu àgg ci ci taalif mu mu ciy bind bi may lëx-lëxi nii le boobu tey téerib suñ baar laa leen doon bëggoon ndax mi ngi fi xam naa ne yàkkamti gee tax wax loo xam ne suñ baar ko bind ay way soo ko dégloo sa yaram day daw teela a mokkal alxuraan lool mbind ko mbindin mu rafet moo xam ne sëñ tubaa gis léppam ci njàngam jàng xam-xam ni ko nit ñi di jàngee sëñ tubaa dafa am ay daara am ay jàngalekatam am méthode bu mu yare moom sëñ Tuubaa noonu lay def képp koo xam ne kii doom waxuma la doom yu mujj sax waaye doom yi njëkk yi nga xam ne moom jamono sëñ bi lañ fekk te sëñ bi moom xam-xam ak yooyu rek la bëgg loola tax ku ci ne ci ñoom Eh, bi nga jangé da nga téla wato wattu alxuraan ndax seigne touba lay dalal daal lay jébbal sub serigne mu jangal jangam sub serigne seigne touba moy Tuubaa man amu ci kenn ko xamni ki genn nga kër serigne touba dem jëggaani fenn xam-xam wala fenn alcorane ba bo sété alcorane ji top ji top wa touba ni sax fofu lañ barké seigne touba bi lañ ko jëlé alcorane dafa top seigne touba toppin woo xam fi ne yomb ci ñom lool fi ne gonek bu yam fukki at ñaar ben rek alcorane yow boo ko xoolee fi ne da nga yéemu sa borom fekk noonu rek la ndax sëñ bi dafa nee na alxuraan sama borom dafa def ma doon na ko alxuraan it sama borom dafa def mu bokk samay pàggateef alxuraan moo teewoon bi may dem ci géej gi di liggéey sama borom may ànd ak nit di xaree ko def yëf nee na alxuraan baati barke alxuraan bi rek yàlla ne ma nag léegi araf bu ci ne ma nga way ko loolu tax mu tàmbalee di taalif di way alxuraan te fu mu toll rek moo tax lim bind. le munu munu ko woon indi li ñi def ci gaal yi bu feesee li ci def day gasso li ci def mu yeb ci geej gi fam nekkon di bind di ci kenn xamul lu mu bind lu fo ci ci aduna ñaata at la fam juroom ñaari at ah, moko dalal alquran bi mu deme ba ba ba ba ba wattu alquran ba nopi mu jang jang jang xam-xam jangam xam-xam yi nag xar bax dong la ndax moy li wax legi ne la jangut lu ko tax ma way waaye woy sëñ ba mbindum sëñ baara mooy wane xam-xamam ak euh, ak déggin arabam nga xam ne moom da cee am xar baax dunduk sëñ baara it nga xam ne ñeent fukki at ak juróom-ñeent dong lu dund daanaka génn ko lépp soo ko xoolee mboole mboolem mbooleem dundam gi li mu ci def dafay mel ni xajut ci dund ndax quarante cinq ans fi ne boo gisoon te gone koo xam ne boo am quarante cinq nii nga gis ko nii ñu daal di lay wax ne la moom day jàng na fi xam-xam ba bind fi téere ba di fi way arab yar fi njaboot seexale fi danga ne loolu xëjul dund te lépp suñu baar def na ko euh, ndax xëy na damaa xamul looy laajal waaye boo booy laaja beneen laaj la ñu mën a mottaliwaale laaj boobu su ko defee boo waxaalee ndax ndax ndax ndax li lim def li ciy dese waaw. suñ baara moom bi mu demee ba noppi ci am njàngam. Eh, ñom dañoo teel dañuy teel def kilifa ndax fukki at ak juroom ben juroom ñaar rek señ bi dañu leen ber ndax bi señ bi ñibbisee ci geej gi diggante bi mu demee ba bu mi ñibbisi geej gi ndax bu fekkee ne bi mi gënë jamono bi señ bi di eh, nekk Touba lay doon 88. so xam bu señ bi di dem dem ci ci geej gi bo xol daanaka juroom ben atam juroom ñaar atam nga xam da koy dalal diggante boobu juroom yaari señ bi am juroom yaari at ci geej gi muy fukki at ak yent dem gànnaar amati fa euh, yat yenti at muy muy muy muy day daal di doon euh, day daal di bëgg a nekk ñaar fukki at bi sëñ ñuy bisee ci géej gi te jógee gànnaar booba sëriñ Baara mi ngi ci réew mi di jàng fii ci diggante bawal gi nga xam ne fii ak fii sëñ soxna Aminta soxna fii booba jur na way fii sëñ Modou Moustapha nekkoon di mm, Touba Mbacke gi waaye jamono bi sëñ bi ñu biseem sëñ mënum sa sëñ bi da ko yóbbaale moo sëñ Fall da leen yóbbaale ñuy jàng fa moom ñoom ñi nga xam ne nag àgguñu woon ci ñaar fukki at booba ñu ngi ci gëstu seen xam-xam ka defi sëñ bi dañ la bàyyi woon fii ñu nekk euh, fii ci diggante ndaam ci diggante euh, sëñ Abdourahman ak sëñ Mbacke Bousso maam Thierno Ibrahima Fati ci ñu lañ doon baagante ak ak ak euh, sëñ sëñ bële euh, sëy kañ daan wax nibra su njàmbur boroom xam-xam bu bari ba ñooñu ci lañ daan baagante nga xam ni seen xam-xam yi jàng yëpp ci lañ ko jàng ah sëñ Mor Absa déedéet du sëñ Mor Absa euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ boobu maam Thierno la nekkaloon bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi yónneelu na ko woo ko nañ ko woo mu ñëw nekkoon na fële ca gànnaar ci boroom xam-xam bi sëñ bi indi woon yéen kii woon foofee la bokk euh, xam na sëñ Mor Sëy def naa la tudd sëñ Mor Sëy dañ ko wax nib raasu njàmbur mooy lampum njàmbur dafa bëri woon xam-xam mën a jàngale lool maanaam ñooñu nag ak ku mel ni euh, waaw euh, ku mel ni maam Thierno nga xam ne moom it ñu bare bare bare jàngal na leen ak xam-xamu sariya xam-xamu tawxiid xam-xamu haqiqa xam-xamu haqiqa moy tasawuf rek ndax da fekkon suñ tubaab bind ci téré te ñom dañ leen ko daan jangal dañ jang booba alquran mokal ko jang na lawal jang na saani jàng ajuróomiye jàng jang jang shuhara jang maqama euh foofu mo doon jangum rew mi eh, te ñom digënté bu gatt daanaka ci ñetti at xam-xam yi te ku ci masaan mokal dal ba ba ba yi ma lay wax ni señ bi dal dal di ber fa nga nek mom nga fay dal di ber tambuli nak di wër ci yeen dëkk yi def say ziar di dem ci bokk yi ñu lay xam di liggéey def sa dara dara ji moy fo xamne da ngay am ko xamne day ñew and ak yow jébbalu ci wala nit ñew jox la doomam nga dem ba ci barab ko nit néew fo wala xeyna dekk jege na fa mo xam dekk jege nga toj ko dari koy defub dëkk mo xam boole la ak sa jenn jaay wala sa jenn nangam ne demal ci baraf baraf sang boole na la ak diw nga dem nek ci mom euh Baara moom bi bimu noppi sëñ bi sëñ bi daf ko bimu ko yebale dafa nekkon fi ci ci ci ci ci ci ci keur sëñ Siré fofu wax na ni nekkon na fa amon na fa amon na fa amon na fa keur sañ ci fa ab dir bobu ngi gi mu bind leetar dal di ko yoni seigne Omar Fall mbake dal di ko koy jox wax ko ne ko seigne bar momi la bëgg mu ñew fofu ci kër ga su fa ñewé dama bëgg nak na ngeen ko di dandre te bañ ko sore xam nga la wax waxin la leg leg mu fa dem njaareem ci seigne touba dal di koy jox ab liggéeyam ndax bobu ñoom at mu jot lu dongay bay ak lum am da koy bolé diko yobul yóbbul ta xam nga daana tabaxal sëriñ Tuubaa sax ay ndaa nda yoy nga deg ñoon nekkon ndiarim dañ ko daan dañ ko daan duy bes bu set 313 nda te bes bu set mu jeex te do gis mu dara lu tok ci digënté xam nga lool moom xar bax la jo xamni ne nit mosu ko def ci aduna fi ni ñu bëri léegi sax dañ koy fatte ci xar bax sëñ Tuubaa te nda yi ci ndiarim mo moog sëñ ba ni sëñ Tuubaa ñibbi njaar ñi bi xam xamna ci ño xam dañ ko daan duy ci jamono yu yàggul rek sëñ ndax sëñ Cheikh Fatta ko mi nga 1980 nangam wala euh, ci law ci la nelaw defe naa ne 85 82 wala wala ay 78 wala 82 daanaka dund ba foofu ndax bi sëñ bi di jógee booba ci waxambaane bi ñaar fukki lay toll. ak sëñ Ibra Mbacke ak Sala ak ku wax sëñ abibou Mbacke ak euh, ay Mbacke Mbacke ak ñeneen dal ñu way ñu ci won bari won nañ ci lool ñoo ñoo daan duy. Hmm? sëñ Habib bu mii bokkul ah, sëñ Habib mii Mbàkke la newoon bokkul ak sëñ Habib mii nekkoon Touba te siiw waaye sëñ Habib bu laay mii Mbàkke la newoon Mbàkke eh, moom moom ndongo yi ñu ànd xam nga ñu li tax nit ñi ñu bëri xamuñ leen te fi nekk li seex si def lañ def dañoo liggéey sëñ Tuubaa bu sëñ Tuubaa xëy gërëm leen waaye li tax mooy jamono bi ñuy liggéey sëñ Tuubaa boobu sëñ Tuubaa bi mu nekkee njaareem nga xam ne boo résidence si waaye bi ci la nekk booba kum yar dootoo soxla àdduna lii tax nga xam ne sëñ Tuubaa ku yéeme la rek mooy Eh, ñoom ñooñi xam naa ci ñett wala ñeent ñoo xam ne ku ci ne ba mu ne la loo bëgg danga ne ko dencal ma li may defal ba yow ma xiyaam booba kum yar ne fi moom ba di ko tàggu dootu bëggati àdduna doo ko soxla am na sax ñooñu dañ naan leen ah ñoom de dañoo doy waar waaye mënoon nañoo laaj sëñ Tuubaa nga xam ne mën na àdduna mën na laaxir waaye nit ku nekk ak sa mbirum tey li lay yéeme mooy comme ne sa mbir yàlla dencal na ko ba yomal xiyaam fi ne boo xoolee doomam da leen di yërëm te ñaar dañ fay liggéeyandoo bokk ndey ak bàyyi kii sëñ bi yeewi ko ñaanal ko mu dem teraanga ji topp ko kee ko damaa bëgg sama mbir ba yomal xiyaam doo gis sax leen dara duñ am bi duñ am dara daanaka duñ ko bari fu mu ngi xamee ne mbirum sëñ Tuubaa du du du rek barke la boo xam ne ku ko liggéeyal naa nga waaye lu muy téyel boppam di ko joxeel boppam soo ne ko téyel ma ko ba naa nga mu denc ko foofu ngay xamee ne am na cër yomal xiyaam ndax su loolu kon ñoom ñaar ñooñu danañ am différence kon bu demee rek da yëf yi day daal di wàcc ci moom loolu nag sëñ Baar da caa bokkoon ci ñuy liggéey di ñëw njaarim di liggéey daan tabax ndaa yi di ko indil sëriñ bi du waxee donga ñu liggéey ko ba noppi fonkoon jaamu yàlla donga yi da leen daan wax ne leen bu koor jotee ku mënta woor koo xam ne liggéey bee lay tee woor na nga bàyyi liggéey bi te woor su waxtu julli jotee dee leen julli ji fonk xasaa it loolit nag alquran ji mom yalla da ko may nim jange alquran nim xame rek non la mom mom la moom loolaa wàcc ci ci ci ñi ñi euh señ bara ku teel bari bëri la ku baxon la wa kër señ Tuubaa dañ ko dan tuddé dom muy waa këri yi taalibeem yi ko xamne dañu dañoo ci mom dan ko tuddé dom mu dan japp ku ne di gis nga ñam señ señ ñaan nga doyna sekk ci kum turam ak te señ bara la taxo ba mu ko def tay mu def ko ko. ak ñu bari ñoo xam ne tey bees la ko doon waxal benn par benn day bari lool. Euh, sëñ Baara nag Mbàkke Kajoor la noppee liggéey foofa la jógee ñibbi si Touba foofa it sëñ Touba moo fa déeroon moo ko joxoon ndigal moo taxoon mu nekk fa. fa ñëwee dëkk fa daal di defaraat dëkk ba gis nga tey jii sëñ Sidi Maxtaar ni mu def dëkk ba yal na fi sunu borom yàggalte te wéral ko ak mboolem ñoo xam ne ñooy waa kër sëñ Baara yi moom daal boo xoolee day mel ni sëñ Baara mbirum sëñ Baara daal boo ko xoolee day mel ni xeet la ci biiru xeet. suñ baar day mel ni xeet ci biiru xeet la am sama benn mbokk may nekk ci Baay Faal yi mu ne ma ñoom di aw xeet lañ waaye noonu la suñ baar mel ci kër Sëñ Tuubaa moom daal ku yéeme la woon ku baax waaye jaar-jaar yu mel nit ku fa jaar mënoo ñàkk a mel ni mel euh, ku dem ba indil ñu xalifa général sët bi fi njëkk a nekk général di sa turandoo ñu joxoon nag nga yor ko nga lépp ko day mel lépp Sëñ Baar la mel daal jamono yëpp moom Sëñ Baar la moo fi ne kon nag Sëñ Tuubaa fay na ko Euh, dafa judd ñëw di ko liggéeyal doon ko jàppale ba yàlla dogal tey jii liggéeyam mat mu dem tey njaboot gi mu fi bàyyi woon ñoo fi nekk ba sëñ si maxtaar mi ñu ngi leen di sant di gërëm bu baax di leen ndokkeel euh, télévision bi ñu koy ñaanal yàlla ndax euh, ab télévision day topp événement xew-xew bu jotee ci jamono yi nit ñi lu ñu dégg lu ñu kii yëpp loolu lañ bëgg ay information di ko na bu yàlla dogalatee jotee daañ ci gën a bàyyi xel ndax jamono yi dafa xat noonu waye bëggoon nañ mu gëna neex bëggoon nañ mu gëna nangam ba nga xam ak gëna yaatu waye ni lako yalla dogal yow it maam Thierno mang ngi lay sant bu baax ndax mayoo ma jàmm ak taxaw bi mo tax nga am jotaay bi ni di téléphone di ki di nangam ak nangam lool ñi ngi la ci sant bu baax may nga no hit occasion ñu liggéeyal ci señ Baara kon ñu ci ñaan yalla ñu yalla defal boole di mi télé baak señ bi nga xam mo moo yor caméra beek ñakoy monté ñakoy jëlé yàlla leen sama borom taxaw ci zahir ak ci baatin barakati a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Seexul Xadim waaw jërëjëf suñu xaadim mu mel ni mbokk yi gis ni ngeen ko gisee rek waxtaan wi moom xam na ni suñ ko toppee duñ fi jóg ndax njariñ yi nga xam ne Sëriñ Baara lamboo na ko ak mbooleem jikko yi nga xam ne nekk na ci moom ñu ko suñu xaadim waxee rek mel na luñ ci teg rek mën naa doon ak yàq luñ luñ ciy dëngal wala luñ yàq waaye neex na neexin woo xam ne buñ ko toppee it duñ fi jóg ndax benn buñ ci jëloon rek doy na sëkk aw waxtaan kon nak ñi santat santaat baax suñu xaadim ci jappandal gi and ak géegu waxtaan xam nañ ni jamono yi bu magal gi jubsee dana xat lool ngir mana amal jotaay yu melni ay ñi sant mbolam ñi nga xam ni and nañu ñom ci jotaay yu melni yépp yëpp ñi weesook yi nga xam ni def nañ ko yépp rek ñi ngi leen sant di sant señ bi nga xam ni mom mo nekk ci caméra bi sa sa yu nekk ñuy and ta liggéey bi rafet lool ci taxawu geeg ñu ni ak mboolem ñi nekk télévision bi yëpp ñu ngi leen sant leen gërëm di leen jox dig daje it ci beneen jotaay incha allahu taala ñu ngi leen jaajëfal bu baax ci safoo gi saa yu nekk gis nañu taxawaay bi yëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal. Sénécartour, c'est la haute gamme et les plus grandes marques du monde, à l'image des grands pays d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Tour, c'est un parc de prestige et une flotte de plus de 400 véhicules, dotés de toutes les options de sécurité et de confort les plus récentes, de la berline à la luxueuse, en passant par l'utilitaire et le tourisme.